bismillahi rahmaani rahiim si turu yàlla yërëmaakoon biy xéewal mbindeefam yépp ci àddina jeglewaakoon biy berndeel way gëm ca àllaaxira alxamdulillahi rabbil aalamiina sant gépp ñeel na yàlla boroom àddina si arrahmaan arrahiim yërëmaa kon bi jaglewaa kon bi maaliki yow mi diini di buuru bési pénc ma iyaaka naabudu wa iyaaka nastaayinu yow donga la nuy jaamu te si yow donga la nuy sàkkoo ndimbal ihdina siraatal mustaqim gindinu jëmane su yoon wu jub صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم wala daalina yoonu ñi ngi xéewal wuteeg ñi nga mere ak ñi réer